Mon ne woon et interrogé nañ tamit euh, Adama officier état civil euh, à l'époque 94 1994, nañ Ousseynou Ndiaye mon officier état civil pour remplacer Adama Thiam donc vous voyez ne débat c'est vrai que amoon ay ay entre entre avocats bon c'est tout à fait normal donc euh, parce que lolo ça rentre dans le cadre normal d'un débat d'audience donc gis aussi que lu ñuy lu Abdou Abdoul Mbaye amul parce que Abdoul Mbaye moom du officier état civil moom du juge moom banquier donc 94 ñoom nous avons décidé ne dañu bëgg ñoo opté pour communauté de biens mais dañu bëgg def séparation dañuy gis juge bi laaj juge mais c'est possible defal bind leen ma kayit yéen ñaar yi ngeen signé ngeen indil ma donc nous ñu ñu signé je ak jabar signé ñoo indi ko juge bi juge bi signé officier état civil da ngay rectifier ordonnance bi greffier en chef de la ko jox joxu ko madame Aminata greffier en chef bi la ko jox greffier en chef bi and ak policier ñu dem be ci état civil bi Adam ko Adama Thiam Adama décision justice la mais mu rectifier donc dafa rectifier donc légui un mom débat bi boné na en réalité Abdoul Mbaye deful faux dimbalewul Adama cham parce que dañu né aide ou assistance de complicité mom dimbalewul Adama cham pour mu def pour mu def euh, faux te tentewul escroquer aussi jabar ji parce que jab mom deug dégg ngeen ko ko xamné né euh ce 50 ans euh mom néna soxnam bu mu amoon bu mu 50 ans daf daf ko def chèque 50 millions may ko ko donc ku jël ku jël chèque 50 millions may ko su jabar je crois que amatul fi ci Sénégal voilà donc en fait te kër gu bu am

nee même 1000 francs 1000 francs soxna ci musu ko tek moom mooy jël lépp mooy jël en charge donc nit kooku di nga di nga ko pour ay tentatives d'escroquerie donc donc lolu amul mais d'après les débats d'audience c'est pratiquement monté de toutes pièces c'est un château de cartes lolu moy dal dañ ko monter dossier bi dal dañ ko monter pour atte parce que xamna xol nañ fépp ben ben ki gisuñu dara ñu ne xara ñu ne ñu la nga mu ci dossier bo xamné ndaw si nee na sax moom porté plainte donc jabaram nee na moom porté wul plainte lu ko naqari mooy réputation bu ñu yàq nee na loolu moo ko naqari voilà.